les professionnels. Si vous voulez le professionnalisme, le confort, la qualité et la sécurité, venez voir notre agence immobilière Prévision Immo. Waouh, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de Habib l'homme fort. L'agence Prévision Immo est focalisée sur deux domaines, à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière. Pour la transaction immobilière, il y a la location, la vente et l'achat. Concernant la promotion immobilière, l'entreprise sera le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le réalisateur du projet defal 33 927 43 07 wala nga def 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix. UCG nu nii la. ñu ngi lay fay bu baax a baax Père Aline. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa am jàmm bu baax a baax. noo waajee combat bi ak noo terminé combat bi. waaw combat bi di koy waajal ànd sama mbokk yi rek ñu waaj ko nag waaj ko bu baax a baax ànd si waa koñ bi yëpp waaw ànd si waa Saloum nag waaw ànd si waa Dakar tamit ànd si waa Gelewaar yëpp waaw ànd si tamit ñu may liggéey tamit waa ICC waaw fàttuma leen nag liggéey ànd si waa écrit bi nag ñu may waaw mu mel ni yi bari nañ waaw nga jël école de Diallo def ko muy sa école def ko muy sa barab boo xamante ni fa nga war a lan moo waral loolu daanaka xamoon moom ba ma njëkkee ñëw Thiès damaa ñëwoon ci course bi mm-hmm. xamoon fi kenn ma ñëw ma ma foo dëkk ñu wax ma téema mu ma waaw mu moom man daal man daal bàyyi mm. moom tamit moom tamit macha allah moom tamit ma dama wa téléphone mu ma mbër foo nekk la ma téye man ah mu ne damaa guddee wàcc tey mal damaa pan li mal def lii mu la bu mu amati léegi da nga kii da nga ñëw nga kii am entraînement mm-hmm. bàyyi làmb da nga war a kii kii si làmb wax na dëgg waaw moo tax ak yow tamit am na suur boo xam ne tamit ñaax nga ma si loolu nga nga war a bàyyi li nga def nga ñëw di entraînement waaw entraînement mooy mooy làmb daal bu amul entraînement tamit ba mënee bëri tamit ñaari jàppante nga jàppante nga sonn du feeñ ndax condition di am lamb yoo xam ne condition moo koy moo koy jeexal mu mel ni baye boo nga xam sa lamb day gën metti ndax Cees gépp bàyyi nañ la xel incha allah tey bi lamb ji jeexee di nga bëree ba pare ñëpp benn wax la ñuy wax mbër daa mel ni ko jox moo ko ko doole waaw dara dañaa liggéey rek ñu ma ay xale la moom ñoo xam nañ moom lamb moom amul yomb lamb bu xam nga ne koy fii dóorante am yomb nekkul lu yomb nekkul foofu noonu ñu dañuy xam a a si suñu moom ni ma amul amul mbokkam mhm. te rajo nekk ba mën a bëri mi sa mbokk yi tamit kontaan nañu si ma la ci wute dañu xam moo def moom dañuy ànd suñu mbokk a baax nga teg suñu tànk waaw yaa gën a xam respecté entraînement yi respecté ñëpp daal kon ëllëg bu amaatee combat ñu mën a demaa ñu mën laa ñaanal ñaani rek rek rek rek rek rek dafa dal quoi ñaani tay tay ji masha Allah man dama ba mu nekk ci affaire dama tenté naa carrément ndax xale bu gën ndaw dafa ñëw rom fekk ma foofu mu ne ma baraam ne ma yàlla na yàlla may ndam aju ma ngi ndaat oto bi loolu yombul billahi wa taala affaire bi tuuma jooy foofu noonu loolu yombul yombul te waa koñ bi tamit maa ngi leen sant bu baax a baax de juddu ma fi de yar kii ma fi de dama fi ñëw ñaari ma amagum sa ñaari at sax waaye lu ma génnee nii ah mbëri Thiès bi boo xam ne judd na fii nii gëmu ma génnee loolu de mbër mu ndaw mais loolu baraam sa yar moo la ko may waaw loolu sa yar moo la ko may wala waa koñ bi baax rek te ni waa koñ bi waxee ci yow mooy ni nga jëfee kon nga gën a fonk ñi nga nekkal xam ne nit sama papa daan wax nit fu mu dem def fa ñetti weer te amu fa ndey amu fa bàyyi na seetaat boppam xool boppam bu baax a a baax a baax ndeyu daara day am ndeyu dëkkandoo day am ndeyu biir kër day am nit nag bu mënee am ndeyu biir kër kese te amul ndeyu daara amul ndeyu dëkkandoo na seetaat boppam bu baax a baax kon ñu bàyyi xel bu baax a baax te xam ni lenn li ñu doomu aadama yi nekk du ay fo nit ci lu muy ne na ko xam ndax temps dafa cher ku jël temps perte ko ngir benn mbir ki mu koy defal war na koo yëg xam ne lii mu koy defal temps bu cher la kenn ku ci nekk mu ngi xëy bàyyi ay yiteem ñëw nekkal la yow ci sa yite xamal li nit ñi perte tey ngir yow nan nga bëree combat bi. waaw combat bi rek yaa ma gën a xam rek moo xamal naa ne mbëri séeréer dafay ñëw. moo tax moom wii la ñuy wax maanaam moom daal buy ñëw daal droit bi dal buy ñëw nag na jël coup bu jëlee coup rek day rees si lamb ji carrément moo tax at bi dafa sifflé rek mu dox si ma bu ma waaxu daal comme daal mbëri séeréer xam nga xam nga séeréer du gis tànk mu xam ma xam ne sama kaw la jëm ma doo ko benn droit bu saf sapp mu mu jaxaso ñu daw ñu daw ñu ñu bëre si biir bëre bi laa ma ma ma tourné ko dem sama yoon. lan ngay wax Vieux Diallo mi la préparé. non Vieux Diallo ma amuñ fayam moom kooku moom mi laay yow dama daj coono de. man maa gars yi sonal ma sonal ma trop pneu surtout pneu pneu camion yi dañ ma doon si ñenn ba may bëgg a dee fi ma amuñ fay moom mu de Anta Père Moussa gars yi ma a dee na ko si fii di lambi Dakarul lambi dëkk ba ak lambi fii nan la mel lamb gi lamb fii kay lamb dóor kay moo gën a métti fu lamb fii moo gën a de lamb dëkk bi mën ngaa ñëw nga sax te doo am confort sax nga géré ko waaye fii ba entraîneur Père Aliou boo jëlee ko gàll de mila la dokul ngay ngay baay kuma fum dala ngay baaba mo kofu wow wow mo meli ku fum la ngay kon mo meli mo mbeur ñu ko top si won ci beccëg gi ci émission top mbeur ñëkke ci mom tay moy premier jour bu émission bi di commencer ci top mbeur doon nañ ñew di leen set ci mais émission bu bess la bo xamanteni dañ ko créer mu émission top mbeur yow lañ ci ñëk set ci muy bisub tay

soo ko ci jaajëful da nga ko war a bàyyi toog di ko seetaan te jaajëfal mooy li war. Mohamed pare na pour fépp fu mbër nekk. amul champion la amul mbër mu ndaw la amul mbër mu mag la fu mbër nekk incha allah émission bi dina la fekk pour la DPS TV. ku ko tàppee ci sa téléphone la DPS TV lépp loo xamante ne mu ngi combat boo xamante ni. jàll na ak combat buy bëgg a ñëw lépp luy xew ci combat bi incha allahu rabi ci wàccaay bi ba combat bi jeexee lépp di nga ko am képp ku tàppe la DPS TV ci YouTube di nga am combat bi en direct ndax bi muy daw direct lañ ko defoon YouTube kon moo mel ni mbër ah sant nañ la bu baax gërëm nañ la li ci des nag mooy nga wol ñu yaaboy ñu toog weccoonteeg moom ay kàddu waaw allah waaw di leen waa seen tamit ca kaw kanam mm-hmm. waaw ñu ngi di ñaanal nag affaire dem ba gën a yokku amen nag waaw fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam ko yàlla may ko wér a la ak yow mi ko mboolem jullit mm-hmm. ay dogi ñaan télé bi gën a kiyaat eh, eh, ah, ngeen ñu waar fii nag mm-hmm. comme ñu amaal combat amaal victoire ñu ñu comme ñu kiyaat koñ bi daal aw ma seen fay daal di leen di leen di nag kii bi ni quoi xam nga làmb ak coono ji rek nee na jégalu baax a baax a baax a baax waa làmb rek waaw di bëggee koñ bu baax a baax di nuyu waa daara ji bu baax a baax a baax surtout maa taalibe yi nii nii mu mel ni Modou Anta dimanche presque mën na la dimanche prochain lay bëri ndax Modou Anta le 10 décembre lay bëri ngeen bokk benn écrit yàlla dogal ni booy ñaa bëri na yàlla may ko yow nga bëree yàlla may ko mu des Modou Anta lan ngay wax Modou Anta ak loo koy ñaax waaw Anta moom suñu garaaw suñu moom ñu koy ñaanal moom moom xol bu rafet la yor da ñëwee fii ni tey tey jii moom moo moom moo dox tànk yooyu noonu bàyyi sama tëggal ñu tey tey jii mhm. waaw mhm. na ko yàlla may ndam mhm. booy bambara ak avenir di ñaanal waa équipe yëpp ñu amagul combat na may leen combat ñu am combat ñëpp yàlla defal ndam di ñaan wi bu baax a baax jàmm ñoom ñëpp yéen ñi ñëpp ko su ne yaa ngi tere Ramadan di sonn si booy yàlla na yàlla moo am sa fa na la yàlla fay di ziare ñëpp daal di a baax di ziare waa koñ bi yëpp di nuyu baax a baax bi nag mère Khadija ñu koy nuyu bu baax a baax Boussa ñu koy nuyu bu baax di nuyu ñëpp Fatima borom borom keneen bi ma fàtte naa ko waaw borom keneen bi moom dañuy jox keneen bu bëree bëri bëri bëri waaw di ziare daara yi ñëpp kontaan naa baka baka di nuyu baka baka baka baax a baax chauffeur camion yi eh ñoom tamit ñaa indi tey cortège bu baka baka baax yaa ma gën a xam di nuyu Sakho tamit ay CC bi yëpp ñu may liggéey ak Saloum tamit ñoo xam ne ñaa fa kaar ñëw mhm. waaw di ziar ñëpp di bëggee ñëpp di waa kontaan naa bu baax a baax a baax a baax a baax di waa jërëjëf Père Aline kontaan naa allah nga woon ñu yaa mu ñëw yaa booy bismillah sama yaay nuyu nañ la ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di la ñaanal sutura di la ñaanal di la ñaanal wér di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu sa ndax nit bu jógee ci dëkk ñëw ci dëkk xool koñ rek ni mu mu jël la def la yaay am na lu bëri loo xamante ni yaa ngi koy liggéey ci loolu parent ba tax na ci bëccëg ñëw nañ fi mais biñ fi dikkee dañoo fekk nga génn waaye waajur yi ñu fekk def nañ seen i ñaan ñu fekk fi buso mu def ñaan wax dëgg yàlla def ay témoignage yu rafet ci mbër ñu ni woon nag buñ jógee làmb ji ci kàttanu yàlla dinañ ñëw fii pour fekk la fi gën a xam nekkin bi ak mbër ndax yomb na wala yomb waaw maa ngi leen di ziare di leen jox seen wàccuwaay di leen gërëm di leen sant waaw di leen wax moom dëgg la moom nee nañu waaye yomb na ci moom ndax ki ñëw na la yaay sama yaay man naa ne fii la ñu xamante mm-hmm. fii la ma xamee fii laa mm-hmm. ma xamee mu sama yaay mm-hmm. fële ne yaay sama yaay di seetlu sa daal. allah man nag ma téye ya, te ma man. Mhm. di ko jéem na. maa ngi ñaan yàlla nag yàlla jëm kanam. amiin yaa rabbal alamin. yàlla jëm kanam. amiin yaa rabbal li muy def nii. yàlla ko yàlla yëkkati ko ca kaw. amiin rek dina am waaw yaru la. allah. bala moo def daal day ñëw ci yow wax. allah loolu kilib amul lépp lu def. day ñëw wax allah. lu mu wax la lu lu nga xam ne li mu wóor ak man rek dama ko daal di bàyyi te li ma ko wax moom lay def macha allah maa ngi ci sant ko ci gërëm mhm. ndax ko le ne maa yaay mhm. te xamoo ko guddi xamoo ko ci ndax di ngeen xëy rek lay yàlla def na mu ñëw dama ma nangul ko macha allah dama ko koy nangu mhm. te maa ngi ñaan yàlla li mu ko nangu yàlla mu yàlla jàppale allahumma amin allahumma amin yàlla jàppale ya rabbal alamin be cat seen ko ko allahumma amin allahumma amin waaw mu mel ni tey mu mel ni tey dafay jóge woon dem champ de course defi fa woon benn jàkkaarloo ci digganteem ak nawlem nawlem be ànd ak ay mbokam moom mu ànd ak ay mbokam kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar ànd ak say mbokk waaj comme ni nga war a waajee ñu ñëw moom yàlla may ko ndam xaj adversaire mu ni tey buñ ko dañ kenn ku ñaan est ce que du ñaan kon ñaan ne yàlla rek a mm-hmm. yàlla ay nangu ñaan mm-hmm. ñun dañuy def rek jaam mm-hmm. ak pexeem yàlla dogal yàlla dogal lii la yàlla dogal ci moom kooku tam ñu ngi koy ñaanal bis dina ñëw yàlla na def mel ni moom allahumma amin waaw ñii nag waa koñ tey ji kenn toow ñoom ñëpp ñu ci moom ci nekk li nga mën a yàq képp ku muy xale di mag ñëpp koñ bi ñëpp la jël def leen yaay mm-hmm. ñi ma def leen baax mm-hmm. kon yaram ak ci gën a mokk ko mm-hmm. ma ndax mënoon ñëw bu mel ne neneen kon di ñëw bokk dugg nit mu bëggante jëra bu ci gën a ndaw mu ñëwee allah ndax yaram teggee ma moom ma ngi koy ni di ndama bi mu am tay yàlla na ñu wax tay bëri na ko yàlla mu melni jakar lo nañu suñu yaay ci suñu émission top mbeur mu nek bis bo xamanteni moy bis bi émission bi njëkk def jagleel ko parham mu nek ci yoonu top mbeur ñëw seet ci parham ci bëcëk gi def ak moom émission ci ngoon gi yàlla may ko ndam ñu ñëw defaat ak moom émission di ñaan yàlla yàlla bu mu yem fii yàlla na ay ndamam gën a bari suñu yaay ñu ngi koy ñaanal sunu borom yàlla na suñu borom gën a yokku fanam yokku wéram ci barke Seydina Muhammad waa daara ji ñi fi ne suñu borom defal leen ñu wàcc ci kàttan sunu borom lépp luñ fiy sàkku sunu borom defal leen ko ñi fi nekk tey jigéen kenn ku ci nekk am loolu nasar ci sa xol tamit lu baax yàlla na ko suñu borom defal barke Seydina Muhammad ñu nuyu Mohamed Junior di la wax ni mbër loo mënoon a jàpp say mbokk jàppal waaye loo mënoon jàpp say dëkkandoo jàppal di nuyu wa koñ bi jël nuyu jigéen ñi teg ko ci sunu yaay jël nuyu xale yu te ñi teg ko ci loxoy buso góor ñi nag ñu jël ko rek te ko ci loxoy góor ñi jàkkaarloo ñoom ñëpp rek kenn ku ci nekk yób joxal ñu ko sa morom mu mel rek ni ngeen téye mbër mbër gis na ko waaye ni ngeen jàppee mbërin mbër gis na ko ay mbokki mbër gis ko kon ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm di leen ñaanal suñu yàlla na suñu borom defar seen i mbir te defar suñu mbir ci kàddu suñu borom jërë ngeen jëf. trois action. Fatou ñoo ngi lay nuyu. di la ziar di la bégg bu baax a baax di wax ni daa mel lu mel nii lañ bëggoon yàlla may ñu ndam moo waraloon tey coono yi amoon ci koñ bi yëpp am fi ñi di kon fekk si leen ngeen am lu ngeen wax ci seen doom am lu ngeen wax ci seen rak mu waaj jëm xare dem yàlla ya, may ko ndam nan nga jàngate loolu ak lan ngay wax ci ndam li waaw ngi lay fay. dina delloo ziar. maa ngi leen di sant yéen ñëpp. maa ngi leen di sant yéen jigéen mag ndaw ndax képp ku fi ko waral. Uh-huh. parce ne nit ku yaru ku dal ku teel. Uh-huh. ñu ci koñ bi. Uh-huh. yamalewul rek ci daara ji. mais dafa jël boppam. wëraloo ko àdduna xam mm-hmm, mm-hmm. parce que nekk na nit koo xamante ne tamit mm-hmm. dafa jël ak alalam lépp boole am ak ñàkk xale ak mag ak ndaw ñëpp lay jàppale liggéeyam bi xoolu ci lenn yaa ngi may dégg ndax ko neexoon tey jii mu ko sa fekk moo tax ndam bii ñu koy ñaanal tey ji mu am ko mhm. doon amin ya rabbal alamin doon jël ndam amin ya rabbal alamin muy muy yor ci kay amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin ñuy laaj faat ndax nekk ak mbeur wala nekk ak mbeur yombul deug la nekk ak mbeur yomb na ndax mbeur chaque jour ak ñi muy liggéey mhm. chaque jour ak comportement bi indi mhm. en plus loolu noonu boo gisee loolu lu koy waral. Mhm. dafay am loo xamante dañ koy conseil. mais mhm. conseil boobu noonu bu ñëwee indi ko yow li nga xamante ne yow yaa nekk mhm. nga naan wàcce boppam. fekk loolu tamit dañ ko kóolu ñu kontaan ci yow bu baax a baax a baax. di wax ni li la nit meunal rakam li la nit meunal càmmañam tayit wax deug yalla sank biñ fi ñëwé ci bëcëk li rek lañ fekkon wax ji rek lañ fekkon kon mu melni tay ñi fi tew ñepp mbër leen fi taxa tew ñi fi tew ñepp mbër leen fi taxa a ah ñu jël ci won ko tay mu doon wajjem xare yalla dem dogal bimu déwé ci jamm ak salam suñu borom may kontam ñu jël ci wat fi ñëw tok pour waxtaan ah ngeen wax témoignage yoy ci mom kon dafa mel ni li ngeen ci ngeen ci kon loolu monek nekk ci moom du lu ngeen xamante ni da ngeen koo tricher mbaa ngeen ko koy wax te defu ko mbër ñu lay ñaan na nga gën a continuer fonk say waajur fonk say dëkkandoo cër bi nga joxe woon nga continuer ko yar bi nga joxe woon nga continuer ko te xam ne yombul dajale fukki nit ci koñ yombul koñ boo xam ne juddoo fa fa dajale mbooloo nga xam ne am mel ni nga mel kan moo ko def ci yow say waajur wala da nga fekk ci yi loolu yàlla moom xam ni la koñ bi téye bari na ku juddoo ci koñ dëkk ci koñ da koñ bi téyewu ko noonu kon dañ ni dëkk ci dëkk bi tekk ci dëkk bi da koo gën kon ñu bàyyi loolu xel danga xam ni yoonu ndaw du gaaw lamb mun ngi ci sa kanam li des bari na ndax fukki combat fi am tey am nga position boo bëri bu beneen yoonee beneen position ngay bëri ñeneen ngay bëri li nga waajoon fàtte ko victoire bi nga am boo xëyee na ko fàtte na mel ni amoo victoire loolu mooy tax mbër doon mbër amna na ñoo xam dañoo dem tay and ak seeni mbokk dem ci lamb ji defet lañ ñibi walé gënoo leen pourtant est-ce que yaa leen gën wajur est-ce que yaa leen gën préparation mais est-ce que ñaan yi ben la tay li way koñ bi yépp ñaan lepp ben façon ñaan la nit ci li nga am ci lolu ngay dimbali waté man sal ñu leen di la jaar di la bëgg di la jox sa waccu way ñaanal la jamm sax ko ci yow yalla ay borom jamm ku jamm nga am jamm yalla ci borom borom demal defal jàmm ah. ñuy am taataan bu ñuy taataan ci yow mu jëm ci UCG jëm ci koñ bi jëm ci supporters ndax supporters yi day génn nañu wax dëgg yàlla ñun ñu gis ndax euh, mangeet ñaan nañu ñun lépp ñun ñu yëg ñu laaj ndax mbër nekk mbër yomb na waaw euh, salaamaaleykum waa Dekkes TV euh, di leen nuyu bu baax a baax di ziare koñ bi yëpp euh, di féliciter suñu mbër bi tey mm-hmm. macha allah ndaxte tey moom dañu sagal trop macha allah te fi gis si koñ bi daanu doon am fii mm-hmm. kon nag c'est normal ñu remercier ko mm-hmm. di lamb am nekkul loo xamante ne yomb waxuma laa na doon ndax entraînement dafa métti trop dañuy toog di ata lekk ba suuf moom ba bagage dem def entraînement am dèjà loolu yomb kon moom lamb mom suñ la yom na yom moom lamb yomb loolu yomb jàmbaar la ma sha allah jambar. waaw mu melni jambar la ndax sa jour lu ci bare bare ñoy nek man ak mom presque fu 17 heures passé ah ñoom suñ ma fa jittiwul rek bu ñewé fa lañ may fekk mu nekk ko xamantene ku nang ko yilif la ko nang ko digal ndax entraînement dafa metti te ñun du ci kenn moom war na wax lolu entraînement dañ leen di teg lu metti dañ leen teg ba teg leen lu ñu xamante ne ñun dañuy xam ne lii ñu leen tek metti na mais parce que ñun ay coach rek lañ mën a doon ñun mënuñu dugg ci biir enceinte bi di bëre ndax dépassé nañ loolu kon ñoom ñoo ci toll ñun ñoom jàppale bi am ñun buñ tolloo ni ñoom ñun buñ ko amoon kon heure bi day fekk ñu nekk yeneen dimension yu bokk tey nag lamb yomb naa dox ndax suite am na te ñoom li wa Dakar amoon tax Dakar di fës ñoom moom la ñuy doog muy ay sud ñu ah. leen jàppale parce que mbër kenn dana dëkk Thiès bëri ba bàyyi bëri te kenn du ko xam ah. parce que benn sud du ko ji lii nag YouTube la partout dans le monde ah. kenn ku ci nekk fi ne nii làmb ji bi muy daw yaa ngi koy am direct yaa ngi koy am direct ñu bëgg loolu doon wax bu fekkoon ay candidat am yoo xamante ne da koy dénk mbër lan nga koy dénk waaw mbër moom lu ma koy na am na lu gis fii te war na ko jàngal lu bëri. Mm-hmm. te xewle. Mm-hmm. ñëpp gën topp la. Mm-hmm. yombut. lu ma koy gën a conseillé. fu mu teg tànk bu mu ko teg. macha allah mu def ko avance. ah mu gën a respecté koñ bi tamit. Ah, ndaxte dëkkuwaay bi neex na. si daara yi la nekk. xatalul fi kenn. kenn xatalul ko fi. Euh, di remercier tamit waa koñ bi yëpp surtout surtout koñ bi mhm. ndaxte mënoon mhm. ñu ne mbëri mbëri daara la mhm. ñu toog seen coin duñ si def dara macha allah mais gis na ne ñoom ñoo ñu gën a bëgg combat bi waaw mu am na fi ay mag yoo xamante ne comme si ñoo bokk ndey ak baay jàpp na si combat bi trop macha allah di ziare tamit di jaajëfal ñi muy liggéeyal gis na seen taxawaay seen waa dëkk fii ba Saalum macha allah ñëpp a macha allah bés moom dañ si kontaan trop di ko macha allah di woo tamit promoteurs Mhm. gis na lu indi tay instant inshallah nañ yokal combat yi ba du gën a du gën bëri waaw wala inshallah allah dëgg gis na xamante ne lañ tek suñu body quoi te na la dañ ci mëna yalla na yalla dogal yalla yalla dogal yalla yalla dogal lool ah mu melni tay mbeur ba tay ay cadeau yi sante ak gëreum ak i conseiller ak i bëgg fi nga tek sa tank muy avancer tanga ba leen ko arrière ci loolu la nit ñi di waxtaane ak yow ndax ñun ñi kat dañuy gan ci ko biir koñ bi waaye suñu nopp yi kenn moom ko liñ fi dégg ci bëccëg moom lañ fi dégg ci guddi te say moroom ma koy wax say naw lay koy wax kon na nga bàyyi sa bopp xel lépp loo mënoon ci lu baax nga continuer ko lépp loo nekkoon ci safaan te daan ko nëbb sax bàyyi boo nga jaare fa ba ko te xam ne entraîné la war entraîné moo la war bàyyi boo nga entraîné te xam ne nekk sa kanam mooy gën a metti foofu li nga romb lamb dootul yomb ci Thiès lamb mënatul a yomb ci Thiès beneen bi ci des may laaj ndax koñ bi mës naa am mbër muy génn dem di bëre ji arrêt non man moom a dégg yàlla man moom gisuma ko waaw mbirum papa sax dégguma ko fii sax ñu ngi koy kii yàlla def na léegi mu ñëw fii ah, Dakar ñëw loose fii ah man moom daanaa daan ànduma entraînement mhm. di fekkee contact am mhm. ah mu am si trop ah, ma ñëw wax ne wax dëgg yàlla moom kii moom suñ ko mhm. bi am na mbër boo xamante ne mën nañu yóbbu suuri ndaxte delluwaat sax tey tey am na fu ñu yóbbu macha allah tey moo dëgg yàlla ah, fu ñu romb rek seen xel yi dañuy ñëwaat delluwaat ah, ah, loolu moo la di profité di remercier waa daara ji nag mhm. macha allah jàpp na si combat bi si côté financement si côté mystiquement mhm. ñoom ñëpp jàpp na si waaw wax dëgg yàlla ñoom moom mention spéciale mhm. ñoom kilifa yu nekk si biir. ci mm. jabar sëñ bi ñoom Jeynaba. Mm. ak ñoom Cheikh Oumar yëpp. Mm. ñu ngi leen di ziar a baax ah, di leen jaajëfal programme dafa métti. Ah, ñu ngi leen di remercier mu mel ni tey boo xoolee tey ki nga xamante ni moo fi tey titre roi des arènes muy Modou Lo tey ba la dëkk. ginnaaw Tivaouane la dëkk. maanaam bëree ko yóbbu biir Pikine moo ko yóbbu parcelle. mu nekk fa jël fa roi des arènes. mais ku ni Modou Lo da nga naan Fandine. kon mu mel ni daa jóge dëkkam bëre wu fa arène waaye daa ñëw fii biir Gelawaar fi bëre kon sagu biir Gelawaar la ndax tey Gelawaar toog na waaye mel na ni Gelawaar toogul parce que fuul bi doon topp Gelawaar ci nawetaan tey ful bu toll noonu moo topp mbër stade kon mu mel ni tey Gelawaar mu ngi dund te jaune noir bi nga xamante ni moom la Gelawaar di porté muy drapeau tey mel ni tey jii maanaam saf na saf biir stade ñu bàyyi loolu xel te xam ni du lamb maanaam du sport du football rek mooy sport lamb sport la. sport bi mu doon nag dafa individuel daa bokkut ak sport bu sport boo xam ne daa collectif xam nga football collectif la mais lamb individualité la kon ñu bàyyi ci loolu xel te xam ni mbër mu ngi porté drapeau Guelewar di ko yóbbu stade ñu koy ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu porte gën ko porté ci yeneen i combat gën a bari ay victoire am ba fu ñu tuddee ñu xalaat ci mbër xalaat ci équipe ci borom waaw jërëjëf maam Saliou ñu sant di la gërëm di la ñaanal suñu borom di wax ne yow li nga wax ëppoon naa bañ a wax kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom fépp foo bëgg a yegg suñu borom yàlla na la fa yeggale mbër après nga ñëw ñu fa collecté mbër looy wax waa daara ji ak looy wa waa koñ bi ak looy wax dëkkandoo yi. waaw di di bu baax a baax den den gërëmaat bu baax a baax a baax a baax gis nañ affaire bu baax a baax a baax waaw daal ñu am suñu bay paas ak sama paañ ak sama nijaay ñëpp ñoom Moussa Touré ñëpp daal daal ñëpp daal bàyyi kenn daal kaw ba Mamadou ñëpp daal yaa Issa Tall Issa taal bi ñu ngi koy bëgg bu baax a baax a baax moom daal la nekkoon dafa génnoon léegi dafa ñibbi daal pour combat bi après day war a delluwaat koy bëgg bu baax a baax a baax a baax ñoom ñëpp daal ñoom ama ñang ñëpp ku lim rek day jum daal ñoo amal sax bu mbokk ak léegi waaw moom jàpp nañu affaire yu baax a baax a baax a baax a baax waaw ah, ceeb bi moo ko joxe waaw ceeb bi yàlla waar moo ko joxe quoi waaw waaw mais kii cinquante kilos ceeb la joxe te gars yi lekk si gars yi ko tey ku ñëw dañu ne eh, mbër sa ceeb bi neex na ma ceeb booy ñëw ndox boobu ka ne yow gëlawaar kaane bee waaw ñu ngi kii bu baax a baax di sant waa gëlawaar daal di sant sama bu baax la maire Xalifa Diallo moom dañ ko sant bu baax. macha allah waaw di sant tamit a euh, a ak ak ak waa ak bu baax a baax a baax waaw di sant busu bu baax a ñoom rakkam yëpp waaw di sant tamit wujj bi moom tamit yaa Adama. waaw ñu koy sant bu baax a baax moom ak doom yëpp daal ñoom xadisaari ñëpp daal ñëpp bàyyi kenn daal. macha allah ak ñu Ousmane ñëpp daal di sant bu baax a baax borom bi dégg bi Mohamed waaw julli bi tey tey moom la bàyyi ko tey. macha allah macha allah waaw di ñëpp di bëgg ñëpp di ko kontaan la télé bi tamit di ko ñaanal ndam te ko sa kanam bu neexee yàlla. incha allah waaw allah rabbi. waaw voilà waa koñ bi. yi nga xamante ni ñoom ñoo la ci combat bi kan ak ñan la ñan nga ci. waaw waaw waaw yi moom autorité waa SCSR bi jàpp nañu bu baax a baax a baax a baax ak baax a baax a baax a baax ak waa Gélawar ñëpp daal waaw di ñëpp di ziare ñëpp daal ak sama jaar gi Abdou Assis man maa a te dafa teew tey ku ma jàngatee métier bi dafa ñu bàyyi itam ñu ñëw te sa séance de combat yi mu ngi doon soog a ñibbi à Dakar tout droit la ni ko déplacement yombul naa bu baax a baax a tey tey tey tey moom xam naa du versé tey <laughs> tey du versé ah ñoom Samba Diallo ñëpp daal di ziare ñëpp di bëggee ñëpp daal ñoom ñaar ñëpp daal yow kontaan naa na jàpp bu baax a baax ilim di lay bëggee di bëggee Mouhamed. Mm-hmm. di ñaanal tele bi nag tam te kanam. yàlla dem ba am nga am sa ayib bu yi. di ziar waa équipe bi jàll ñëpp daal képp koo xam yaa ngi jàppale ba ICS ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. waaw di kontaan naa. waaw mu mel ni li ñu cërale woon ci waxtu bi dama naan ëpp na sax laay wax. ñuy nuyu internet yëpp di ziar ñëpp. di bëggee kenn ci ñun koo xamante ni nii mënuñu ko ñàkk bañ a tudd muy bàyyi jaga bàjjan ñu ngi koy nuyu. Diko beggé diko di ziar di jox wàcc wayam di ñaanal jamm di nuñu salum kutir li nga xamanteni ñepp ñëpp xam nañ ni lu mu ñawul gënul ñu ngi koy nuyu baax di ziar di jox wàcc wayam di ñaanal jamm bu baaxa baaxa baax di nuyu mohammed di nuyu so cameraman Coro ñoo andol legi dem lamb ja dañ ko bayyi ni dafa dem noppalu ji bokk ñu ngi koy nuyu di beggé diko di ziar diko jox wàcc wayam di ñaanal jamm di wax ni ñu tek fofu suñu baram rek jëm ci benen émission ci benen top lamb ci benen top mbeur ci carte bi suñu borom yalla nañu yalla defal deg ak top da may ñu guddu fan bu ànd ak wër ak wér lay ak barke ci carte bi suñu borom jere ngeen jëf. kontaan nañu